ziar nañ leen ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde moo France États-Unis Espagne Maroc fépp la Sénégal nekk di suivre 4appuis ñu la nuyu bu baax di la ziar tey nag ñu ngi parcelle unité unité 4 certifié Boy Faye euh, ñu xam booy fay baax si làmb xam ko si lutte avec frappe xam ko si lu nekk nag tey nag ñëwoon fii seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak ci carrière am carrière am carrière lutte coronavirus beeg huis clos beeg euh, affaire yu mel noonu yëpp ñu fas yéene ci waxtaan ak moom mu joxe ci xalaatam ñu lay koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu si waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi lay nuyu Bamba bu baax a baax di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu Sénégal waaw di nuyu sunu grand bi nga xam ne moom lañ ñëw fii ci barab bi toog fi muy daara ji muy Saalum Sopp di sunu grand El Hadj mënuñ ko fay. may jàpp ci bagage yi bu baax a baax ak booyam yi mu nekkal nii yëpp ñoom Modou gaa yëpp mooy loolu. Mhm. Ah, di la nuyu bu baax a baax di nuyu àdduna. macha allah booy fay bu ñu ñëwaat sa carrière lutte avec frappe bi d'abord la ñu njëkkee sa palmarès nan la demee ñaata combat nga bëri. waaw booy fay bëri na 11 combats bëri dóor. 11 combats bëri dóor. Mhm. nan la demee comme ñaata victoire. waaw ñàkk naa ci ñetti làmb nag. Mhm. waaw yi ci des yëpp yàlla may na ma ci ndam quoi. muy sept victoire. waaw sept victoire li ma ñu si dëy ñu si gën a ràññee si cette victoire yi. waaw dumbul ak Sunjata rek. lañ ci mhm. lañ ci lañ ci lim yi nga xam ne moo ci gën a ràññeeku. moo leen a xam am na xam ne ràññeeku na mais ñaareel lañ lay limal rek mhm. bàyyi. muy du dumbul bu yof. waaw mhm. dumbul bu yof. defet bi kenn lañ ma xool. defet bi. waaw euh, Modou Diakhaté. Modou Diakhaté waaw. mën naa ne gëj na bëree sax mu jaata gëj na bëree xanaa boobu mooy sunu ah, sunu première année mën na ne bi ñuy jël suñuy defet boobu ay ndaw la ak tout tànk lañ mhm. boobu dañuy soog a dugg ci làmb quoi mhm. kon mu nekk sept sept victoire ak euh, ak quatre mhm. ok d' léegi dañuy gis sa combat sa mbapat bi ci mbapat damay lim par kenn kenn ah, mbër yi lu simple yi ku ci nekk nga xam ñaata ko maa ngeen bëre ñaata yoon nga ko daan ñaata yoon la la daan ñu ko ci franc waaw Franc nag moom bëri liñ liñ bëri moom mënu ma ko kon parce que fi mu ne nii ñun traditionnel boo bëggee compter yi nga bëree gaa yi day bëri parce que ñu ci bëri dangay ngay bëree ñoom samedi comme àll bi xëy dimanche bëri ñoom dakaar maanaam chaque jour yaa ñoom yéen a ngi bëri mais mën naa ne Franc moom li ma jàpp daal trois la xama quatre yëpp moo ko génnee am na ci benn la ci am victoire yeneen ni ay par avertissement la may génnee quoi par avertissement la ñuy ñàkk làmb yi waaw noonu la demee quoi mais dama seetlu yu day day day waaw xam nga nga Franc ndaanaanu làmb la quoi moom champion la boo xamante ne nii mbëru waada la wax dëgg gars yi ay ndaanaan lañu ay champion te traditionnel dafa am nu mu baaxoo moom mooy tey jii nii koo daan tey bu subaa mën naa fayu maanaam bu kenn daan ba yuuxu nii kañu nit mën na la daan tey ngeen ñëw Dakar nga fayu moo tax nekk na loo xamante ne nii presque mën naa ne mënante amu ci bu baax a baax ndax koo tegal di ko daan ñaari yoon sax ñetteel ba dalay daan waaw ah, yooyu day day am ci traditionnel quoi parce que da ngeen xamante quoi. waaw xamante ne ndax mii ne day mënoo at mi yëpp. Hmm. benn façon lim bi ngay bëreel. Hmm. at mi yëpp lim boobu ngay bëreel. Hmm. kon da ngay dem ba da nga xam ñooñu dañuy xamante ñun suñu biir quoi ku ne da ngay xam fi ngay jaar sa morom. ko. léegi ku ëppale loolu daal moom moo ëppale. moom moom ñàkk nga ko daan non non man Franc musuma am ci moom dam Franc moom musuma ko daan. mais keroog seen final bi ngeen bëree woon euh, stade Iba Mar Diop ci drapeau Ba bi. combat bi metti woon trop waaw làmb yi noonu lay maa moom nag noonu lay faral di eh, demee lu bëree bëri parce que mm-hmm. booy xool benn yoon daal daan na ma nit ñi gis ko mooy bi ma wëree ndaw ma yàgg mais yeneen combat yi ñëpp mm-hmm. gis nañu day të moom Kaolack mm-hmm. ji të torop ñu mas niil Joal dañu mas a niil Dakar dañu dañu maanaam par avertissement lay amee victoire quoi nga avertissement yi bu fekkee ne mu la après mooy loolu moom la ñu jox moom la ñuy jox victoire noonu la fa demee ko da ngeen tolloo doole wala da ngeen da ngeen tolloo xam-xam bëri non moom champion la xam nga tey jii nii nit ki bu ngeen yàggee li ngeen di bëree rek. Hmm. noonu lay demee quoi. waaw des fois yaa ma gën a xam da ngeen di bëree bëreewaat bëreewaat bu yàggee da ngeen di miinante ku ne day xam li sa morom bëgg nga mun ko di contrer yow it nga am lay wut moom moo xam ne lii nga bëgg mu lay tëj fépp moom affaire bi noonu lay demee toujours quoi. comme passé laa nekk Obali ñu ko ma Obali ñaata yoon ngeen bëre. non Obali. Hmm. Obali moom. non jàpp ma carré man gaa yi du may jàpp lu ji bëri parce que xam la moo tax man su ma tey mhm. daan waa ji fàtte naa ko damay xalaat semaine bii di ñëw du may def ba daan la mais bi Iba Mar waaw boobu am naa ci moom ndam mhm. dajowoon nañ tamit 5 euh, millions bu njëkk ba mhm. ma am ci moom ndam mooy bi may final rek rek ak yeneen ak yeneen tamit bi beneen dimanche bi si topp sax dama am ci moom ndam mais moom it daan na ma gànjaay am nañ làmb boo xam ne jotuñ ko bëre tamit. Mhm. fee ne njaafat. Mhm. boo xam ne dañuy dem ba public bi dugg ci biir. Mhm. stade mënatuñu bëre parce que. sécurité bi wóoratul woon. après làmb ji dafa mosoon toj. waaw te affaire moom noonu ñun dañuy daanante. biñ paree sax laa ñëwee noonu drapeau bi dama ko jël jox ko mu dem moom loolu du problème comme dañuy xëy di daje ñun ñëpp noonu lay demee moom compétition la rek. compétition la rek. mais ma 100 pour cent parcelle bi. ak ma gis ne mbiri parcelle daje mbappat di bëri seen bi loolu noonu koy gérer. waaw loolu la rek xam nga bagage moom mooy li ñuy wax traditionnel moom du dara nit ki mën ngeen a bokk ndeex bàyyi ngeen bokk fi ngeen di lekkee di fi naanee defee lépp bu ngeen xëyee bu ngeen waree jëflante ngeen jëflante parce que da ngay xool dañ koy natt fenn mosoon mhm. na am anecdote buñ ma ah, buñ ma buñ ma mos a ci ci Maama Lamine ak Basirou waaw benn kii boo xam ne kii maama a ko yar xam ma kii seen kër biñ ñëwee biñ dajee dana ko kaa ñu bëree yow fii nga jëmee man fii laa jëmee te dañoo bëre loolu jotewu ci dara mën ngeen jëflante li ngeen di jëflante bu ngeen paree bokkaat ndey ak baay parce que làmb ji amul naxante quoi ah looloo ci ne bu leen ko bëree dóor su dem bëri si combat lu avec frappe non loolu ko bokk di dóor bëri dóor loolu mënul nekk mais bëri dóor ak bëri kon na ngeen a bëri bëri simple mais du loon loolu compétition parce que tey jii nii ñun dañuy bëri suñu biir li ñuy bëri suñu biir mooy munoo munoo boole cinq personnes wala six personnes yëpp nga ne da ngay mayante ak ñoom loolu mënul nekk. tey jii nii tey jii bu ma bindoo aada bindoo bindu góor soog bindu Franc bindu Ibou Ndiaye bindu Cheikh Tidiane bindu keneen ak keneen bindu léegi ñun su fekkee dañuy mayante suñu biir kon làmb juñ dem dañuy génnee ci biir kon jaratu ñuy dem ci làmb maam nañ compétir buñ paree bokkaan ak bàyyi comme niñ ko bokkee woon rek yee non non bëri dóor moom làmb mënul nu boole ñu def bëri dóor loolu mënul nekk parce que parcelle bi ñoo bokk li ñuy représenté ñu continuer Franc euh, waaw kooku champion la benn yoon lañ mës a daje mu génnee ma par avertissement euh, lat menge quoi waaw moom champion la moom waaw par avertissement moom kenn du moom champion la quoi rëg rëg-rëg euh, trois fois xaw ma de man daal fàtte naa daal parce que bi biñ biñ mujjee bëri màngoom dafa yàgg. Mhm. waaw biñ mujjee tase ji la moom dafa xaw a diire. Mhm. mais yooyu yëpp moom moo am ndam quoi. Mhm. Uh-huh. moo am ndam ci loolu. waaw. kii nag Bébé Diène. Bébé Diène musuñu tase màngoom. musuñu tase moo tax ma naa la làmb ji dafa xaw a yéeme li ñuy ne ci ci làmb géewu laam yëpp musuñu tase màngoom noonu lay demee ko ordinateur pare ko noonu moom dañuy daje ci àll bi des fois Dakar moom duñu fiy daje. Mhm. àll bi daal lañ mës a daje. Mhm. moo amoon dam affaire noonu lay demee quoi. Mhm. mbëri simple yi ñoom ku lu ci gën a sonal koo xam ne chaque jour bu ngeen dajee dalay daf la sonal. comme sonal la nii ci làmb. waaw non man nag loolu jàpp ma ko de sonal ma ci làmb moom munul ne làmb mooy li ma la wax sonal ma ci làmb. ak sóoraal nit ci làmb moom mënut am ci man. xalaatu ma ko damay takk ñëw compétir. muy sunu wërsëg ñu jël muy wërsëgu keneen keneen jël ko ñun mhm. noonu rek la ñuy jëflantee quoi. Mhm. looloo ci nekk. yow koo ci gën a sonal koo xam ne foo ko foo ko fekk rek daan ko. comme fu ma ko fekk daan ko non man sonal ma ci kenn dañuy daanante rek parce lay demee daal lamb mhm. daal. traditionnel lamb traditionnel la. daanante la daanante la rek. général Malika. pare que noonu lay demee daanante rek. waaw mais parce que ngeen bëri benn ba daan ko ju yëkkati seen loxo ne cinq fois wala wala dix fois. non man du ma def loolu xam nga tax du def loolu. làmb dafa tërëri tey jii nii. dafa am loo xamante ne nii mbëru làmb waru ko def nit ki loo ko daan daan daan waroo def loolu jóg di ko limal parce que làmb day tourné mën nga di ko daan mu dem ba jëmmi jamono mu tourné làmb jamono tourné mu lay daan di la daan di la daan di la daan noonu rek lay demee moo tax man duma ma limal mbër quoi mën nga ko daan mais taxul nga mën ko waaw noonu lay demee. noonu lay demee. Mhm. ok si xayma saison bi passé lu simple ñaata ñaata nga gañ ci xaalis soo defee xayma bi yëpp. non loolu moom wax dëgg fa yàlla mënu ma ko xam mais sant nañ yàlla daal bu baax ndax am nañ ci sant nañ daal sant nañ biñ voyagé ba ñibbi si moom takk sër bi mhm. sant nañ yàlla bu baax a baax a baax parce que mhm. mooy loolu daal mhm. <laughs> mais ci xayma au minimum ñaata nga au minimum ñaata lay doon si xayma rek au minimum non néewee ba néew ñaata ngay am ci par euh, année ci lu simple euh, non loolu moom loolu du ma koy du mën a wax loolu kay moom dañuy dañuy def rek loolu dinañ <laughs> nañ ci def code rek léegi ñu ci lu tax frappe bi sa dernier combat sa dernier combat bi nga bëri si lutte avec frappe bi. waaw bi ma mujjee bëri dama ko ñàkkoon ci njaaxum. Hmm. boobu boobu léegi am na trois ans xaw ma. Hmm. boobu maa ngi maa ngi maa ngi ginnaaw raay. Hmm. nga man bi ñu gëjee bëree dóor ak léegi dafa xaw a diire quoi. parce que moytonte bi moo ko xaw a yàq. ndax fi mu ne nii. dangay xool mbër mu ñu dem seet ne ko diw. nga xool xool ñëw ne sama staff nii naa nga te nga traditionnel boo xasee ba nit. ba pare boole ko équipe nationale bu wooloo woowaat la pare nañ gars yi kenn dootul nangoo bëreex yow. Mhm. kuñ dem seeti mu ne maa ko lii maa laa fekk na lépp bañ a bëreex yow donc moo ciy nekk. kon gars dañ lay moytu mu jàpp. moytu moytu la bu baax a baax ñoom ñi ñoom ñi may waxal xam nañ seen bopp xam nañ ne moytu moo fi ne am na mbëri bëri ñuy seeti da delloo avance. Mhm. wala nga jël ba pare naan waxtaan ak say say say staff boo xëyee delloo xaalis bi. Mhm. loolu bari na. Uh-huh. yow koo gis ne instant bi lutte avec frappe bi laa ma boole bi non man ni ngi may doxal sax ñu ngi may doxal sax benn la parce que dama lekk avance nii avance jam production ma lekk avance am. waaw mu am combat bu taxawoon ba commencé woon siiw léegi combat bi yàqu. mooy doxal beneen production moo taxawal euh, kii. waaw bu baar ak kii mooy làmb mu tëgg mhm. Gàmbi. Mhm. moom laa yor avance am. Mhm. waaw instant bii nii loolu la xaar quoi. pour ñu jox ñu adversaire ñu dem bëri am na ñu doon waxtaanal presque làmb bi. Petit Niang ak Brise de Mer dafa ne ma ko moo ko tëgg de. waaw waaw yow moom mooy def yow moo taxawal Petit Niang ak Brise de Mer. Uh-huh. kon ñu ngi la wut adversaire ba léegi nii. waaw ñu ngi adversaire actuellement nii mais am na ñoom ku doon waxal sax ba ba ba sori nañ ci kàddu daal ñoom. ba sori nañ ci kàddu. waaw. Mm-hmm. mënoo wax kan la. non non non loolu duñ koy wax loolu dañ ciy kon loolu duñ koy wax <laughs> ndax sotteegul <laughs> sottee rek incha allah noonu lay demee. <laughs> mais ñu gis si bi nga gën a prouvé nag. waaw waaw lutte fra bi sax prouvé nañ ci saa parce que. Mm-hmm. dumbul dumbul maa ko njëkk a daan. Mm-hmm. yóbbu ko dumbul waaw daan dumbul 12 ans booy gendat su njata champion Sélé nga am champion bu mag a ngi noonu. Sélé Mélé benn defet la mag ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci làmb. moo tax loolu rek lañ gis te ñun bëri nañ quatre grands combats ci bëri dóor waaw. quatre waaw ci bëri dóor beeg yooyu. am na solo noonu mhm. bi nag onze di un an presque ma ngi ni làmb amul. waaw corona bi moom àdduna la kor du ma wax senegal kese. moom képp ku doon liggéey fii nii. Hmm. ñi nga xamante ne ni ay chef d' entreprise lañ doon gagné xaalis bu bëri sax fi mu ne nii ku ci doon gagné 20 millions fi mu ne nii pour nga gagné 6 millions problème la parce que ku ne gis na li xew ci réew mi waaw métti na lool tamit waaw mooy wax naan nañ xool nañ xool nu mu gën a mën a rafetee ñu defee ko gars yi ubbi làmb ji ñu démarré nekk ci ñu nekkaatoon waaw ñu ngi dégg ñu ngi waxtaan ci huis clos mais buñ ci waxtaanee ak promoteurs yi muy li gën ñu def ko ndaw ñu yeggali ci liñ newoon parce que ku ci nekk yow yaa ngi nekk ci li nga nekk quoi kenn yàq kenn yàqalu la dara parce que tey jii ñun amuñu lu làmb kalaake wuñu porte kenn ñaanuñu kenn saraxuwuñu kenn état bi ñun li ñu leen ñaan mooy ñu aral ñu làmb ji ubbil ñu ko ñu continuer def li ñu doon def parce que tey jii ni ay ndaw ñoo ci nekk te li ci nekk kenn mënu laa ñaata doomu aadama la waaw te ñi ci waaw li ci doon geñe bëri na di doon dund ci stade bi bëri na tey jii tee nañ ñëpp muy ki doon jaay caaf ki doon jaay ndox ki doon jënd bee di jaayaat ñeneen a ñeneen ak ñeneen ñu tëj fépp mbëru làmb yi nga xamante ne tey ji licencié yi liñ ci jot gisee lañ la wax mais ëpp na sax liñ lay liñ lay wax nii waaw waaw te ji boo xoolee mbëri na dakaar yi ne ci àll bee ko ëpp bu réunion amoon ñu def ci stade ñu woo mbëri nekk ci àll bi ak mbëri ne fii ñu toog ci biir stade da nga naan c'est pas vrai lii munta ne doomu aadama lii lépp nekkul mbër fii Sénégal kon nañu gën a jàppale làmb di aaral ñu ko ma koy ñaan ministre Matar Ba ak président ma Sall mi nga xamante mooy suñu njiit ñu jàpp ci bagage yi bu baax a baax daal di xool ni ñu defee ba gars yi daal di commencé waat làmb yi gars yi nekk ci quoi continuer seen i macha allah am na solo